taxawaayu ngaaka parce que man ngaaka dama ko tegoon nit ku am valeur nit ku am ay principe mais moo gisee après mu dem ci wetu président Sall di lëmbal après classe am beeg booy ahlu biir gi ban ban maanaam ban taxawaay nga mën a gis ci ngaaka gisoon ni def ku ñàkk fayda la ku ñàkk fële la rapport est-ce que war na taxawee noonu. waaw xam nga son bu waaw du gis nga man damay wax ni que gars yu bëri. Hmm. que cuub nañ seen drapeau. parce que du gis nga dafa am loo xamee ni que mën naa ni li ëpp ci àdduna bi fi mu ne nii. Mhm. moom la ñu bëgg. muy xaalis. muy xaalis quoi. souvent nit ki daf daan nekk ci dara. boo amee ni que amur bi moom moo ko ci bàyyi quoi. Mhm. nga xamee ni que dina neex même boo ci gañewul lu bëri sax mais doo ci woyee di quoi. mais moment bi ñu toll dafa mel ni. que artistes yu bëri bëri bëri bëri. mais pourquoi ngay raay ngaaka ngaaka laa laaj te yaa ngi def autour du waaw non damay dinaa ci ñëw dinaa ci ñëw li ma ci bëgg a wax lépp dinaa wax incha allah. parce que soo déggee man la dafa am ñoo xam dañuy cuub seen drapeau mooy que ligue bi quoi. en fait ligue bi. Hmm. au lieu que ñu sóoraale ñi nekk seen ginnaaw. ñi nga xamee ni que seen ay fans lan nga xamee ni que tey bu ñu yegsee fii ñoom ñoo leen fi teg. Hmm. li ñu ñàkk ñu jub di ko wax mais ñoom ku ci nekk da ngay jéem a xool nan ngay amee connaissance bu lay ah, julal njariñ quoi. c'est nga comprendre fi mu link bi quoi nooy amee link bi. parce que ngaa wetu président Macky Sall di lëmbal loolu loolu du yëfi góor tamit. yëmbal du yëfi lëmbal. du yëfi du yëfi góor ko fay est ko. waaw mais même bu la fayee du gis nga dafa am loo xamee ni que bu ko nit ki soxlaa. Mhm. lu ci nekk am na liggéeyam nan waxante dëgg dëkk bii am na fi ñoo xamee ni que tey soo leen lëmbaloo woon kenn du ni ñii waruñu lëmbal parce que loolu mooy seen métier ah, naa dem rek def playback dem ñibbi dem def ko jël loolu lañ ko jëlee mais le fait que mu dem ci côté président di lëmbal pour bëgg reetaan loo président président reetaan lan lay jariñ ngaaga wala li mu koy jox après ci lëmbal lan la koy lan la koy la koy dikk quoi parce que ñun ay rapport lan du gis nga benn rapport fee loo xamee ni que rafetul. Uh-huh. dañuy jàpp ñun mouvement hip hop bépp. parce que bu ñuy wax dañ naan rappeurs yi léegi nii ak nii ak nii ak nii ak nii. moo tax ku ciy def danga nga war a sóoraale ngi li ngay def. que lëmbal moom. Mm-hmm. sa waay. Mm. rapport bu ko def da ngaa tegoo ko fenn. d'accord mais nee na mooy seen papa. ah xam na kon papa yi lëmbalkat yi la mais ñun moom lëmbalul. kuy ah, lëmbal bind nee na ma bind bi ak maayik bi mooy seen papa la wax. waaw dégg li ma la wax du gis nga ngaaka bi lay man MC Baol. waaw ah. daaxuma bind. ah oui non bind bu fekkee ni bind texte rek texte bu riis. Mhm. man na ma gën a siiw nag parce que moo ma njëkk ci affaire yi gars yi moom leen gën a xam. yow kan moo lay bind loolu da nga koy nangul. mais daaxuma bind. kan moo lay bindal. man kenn bindal ma bindal sa maay bindal sama bopp. texte bu ma def maa wa bindal sama bopp.